Youssouf Bodian ñoo ngi lay nuyu. di la fay euh, ndake di nuyu ñëpp. football lañ koy dooree waye ak arbitre yi nga xamni amna am na ndaw lu yees lu leen togal ci fédération bi. Malang Diédhiou lay wuyoo moom mooy agdalikon mandat Amadou François ndjay mi nga xamanteni dafa genn aduna ci at mi moom moo nekkoon président commission des arbitres euh, poste bi léegi kon bi mu genné aduna ba léegi kenn nekk fa euh, té ki jité poste bobu mom moy téwal arbitre yi ci fédération bi motax comité exécutif d'ali Gadje, di daje ngir kon euh, di choisir ki nga xamante ni mooy mandat bi ancien euh, arbitre international euh, beaucoup ci commission des arbitres Boukaf, CAF nekk instructeur bu FIFA beneen Togal, beaucoup de kon ci nga xamante comité exécutif la fédération bi doon daje tey Djibril Sidibé bokk léegi ci commission nationale de résolution de litiges mooy wuutu kii di Lamine Boub euh, mi nga xamante ni dañ ko fal lu yàggul secrétaire général du union nationale des footballeurs professionnels du euh, Sénégal comité exécutif bi bu fédération sénégalaise de football jël tamit yeneen dogal euh, wax kon lan moo nekk date démarrage li di saison bi nga xamante ni ci la ñu jëm ñand Omar Mbow mi jàng communiqué bi saison 2020-2021 dina tambali 31 octobre Bini ñu dëgmal ci formalité administrative yi club Ligue 1 et Ligue 2 ñooy jiitu ci mbir novembre lay nekk club Ligue football amateur yi Coupe du Sénégal bu football moom ñaareelu fan janvier lay tambali le ci datu FIFA yi comité exécutif bu fédération sénégalaise bu football né dina ci taxaw Sénégal dina jongante ak waa Guinée Bissau ci aller ak retour juróom-ñeenteelu fan ak fukki ak juróom-ñaareelu fan 3 troisième ak quatrième journée qualification coupe d'Afrique deux mille vingt et ci lolu fédération sénégalaise bu football né dina tambali liggéey ñel tabax lo yu njëkk siège régional fukki ak benneelu fan wéru septembre Kédougou dina amal. séddale yu njëkk équipement sportif yi nga xam ne fa FIFA moo ko joxe lu jëm ci assemblée générale ordinaire fédération bi waroon am fukkeelu fan weeru octobre comité exécutif ne dina ko toxal ba jéemi jamono li waral bile dogal nag mooy tere bi ñu tere woon rassemblement yi ñeel mbas mi di coronavirus Youssouf ñu woyi ci wàllu football ba léegi ak Pape Cheikh Diop doomu Sénégal la la mu bëgg moom moo di sol maillot bu Sénégal football ak gaynde yi milieu de terrain la am ñaari fukki ak euh, ñett mu wax ko ca ba interview ak suñu naataangoo yu équipe moom nag euh, ñaari at ci ginnaaw champion d'Europe espoir 2015 ak Espagne waxoon na ni moom roxa bi xaar maanaam équipe bu mag bi bu Espagne waaye booba léegi kenn woowu ko ba tax na kon Pape Cheikh euh, ci diggante bi jóge na Celta Vigo bi nga xamante ne moo ko formé dem ci Lyon Lyon dañ ko al jamono yi Dijon mom pap Cheikh Diop boobule lu ñu amé fukki ak juróom fukki at ak ñaar 12 ans la joggé kon Sénégal dem fofu foofule euh, ci euh, Espagne ba tax na kon amna nationalité bi est-ce que euh, joueur la bo xamanteni war nañ ko jox chance am ak équipe nationale du Sénégal tontu li ak suñu naatango bi di Khalifa Gueye. lañ ci demee xel te bañ ci demee xol. joueur bi deug la ñaaraat ci ginnaw dafa ni woon moom Espagne la bëgg a fubal xëy na xaar na def na clé de def na lim man Espagne woowu ko donte nag fubal na fa gañe na fa sax Euro U19 Asensio mi min doon sow daaw Real bokkoon na ca équipe boobu dem na ba jouer ci U21 yi sax dégg naa xëy na euh, ñu doon xaar mais doxul léegi nag moom mu xalaat ni aussi am na beneen chance mooy football Sénégal légui nak mu guen avoué ni dafa bëgg football Sénégal pour moi, li a war a njëkk a le joueur en tant que footballeur est-ce que profil est intéressé Je man dé dama waaw parce que c'est un milieu relayeur le Sénégal n'est pas très bien fourni en milieu hein. la preuve moy Aliou Cissé ñëw ba il a pratiquement été plus de 12 milieux de terrain ou pays. ku ci nekk indi na lépp parce que xëy na li ñu wër amagu ko Gana Gueye daanaka kese moo ci gagné woon place am donc ku mel noonu bu dee milieu relayeur dañ koy gis mu koy def donte nag nee nañ dana football milieu défensif baax na mu ñëw ñu xool ko taayam baax na gis naa ko ku sawar na ci terrain paasam baax na am na ñam pour ñu sélectionné ko léegi nag ci moom la parce que man damaa gëm ne équipe nationale ku fi ñëw di football da war a compétitif sa équipe te nag bu mu a nekk championnat bu am niveau nekk tamit am niveau loolu la ñu war a sélectionné Pape Cheikh Diop mi dafa bokk ci ñàkk sens defoon déclaration loolu rek xëy na lañ koy reproché mais dem na ba ci biir mu xam ni déclaration bi da koy porté préjudice et que am na chance football Sénégal gannaaw ñoom ñëpp ñu wax la ko ak ñu bañ ko ku ci amoon possibilité football Europe da ngay football Europe léegi nag dañ ko xool bu dee nag lu compétitif la ñu woo ko bu ñëwee jàpp naa ne bu foolee benn match ñaar ñett bu defee match yu baax gars yi fàtte lépp mbay ñaar lu ne def nañ ko fi mu nekkoon kon jàngatuk Khalifa Gueye Youssouf mm-hmm. li dañuy dem ba ca Espagne mu mel ni supporters yu Barça yi ba léegi daal giifaguñu. waaw mer gi giifagul ndax euh, sànq dañoo dem dugg par force Camp Nou nee nañu euh, président bi di Josep Maria euh, Bartomeu lañ bëggoon waxal ci lu jëm ci Messi bi nga xamante ne kon nee na day jóge ci équipe bi kon yëngal bu baax a baax club boobule. agent de sécurité yi yëpp yi daf leen ëpp loxo ba ñu daal di woo police ngir mën a génnee supporters yooyu de. Euh, ci laat ci journée bi kon kii di euh, rajo bi di euh, RAC Uno rajo la bu nekk ci Catalogne di rajo privé bu mag foofule wax na ni Jorge Messi moom mooy Pape Messi moom it mooy représenté doomam tàmbali na waxtaan ak waa Manchester City ba sax rajo bi yokku ci ni Messi am na ay conditions yu mu teg ngir mën a dem le bokk na ci kii di Pep Guardiola way di nekk euh, entraîneur équipe bi ñu ni mom jot na ak euh, Pep Guardiola euh, Folet ci Barça ba ñu am ay ndam yu ak équipe bi di FC Barcelone yeen xibaar yu ci ay journaux ak ay yu nek Argentine ñu wax ni Messi donte sax qui ci club bi du ñak ci week-end bi suñuy door kon activités yi ngir préparer championnat bi na ci test physique waaye tamit test ci jëm ci Covid 19 du ñàkk sax mu bokk ci entraînement bu njëkk bu amal altine yeneen média wax ni sax euh, mën na am mu entraîner à l'écart maanaam bu bokk ak yeneen joueurs yi yooyu yëpp kon fu mu toll nii xibaar yi di jib fu nekk waaye fii ak weekend bi dina leer ndax Messi dina dem def test physique yi ndax na bokk ci entraînement yi euh, nañu xam kon fii ak weekend bi ñu jëm incha allah. Nous quoi ko un football qui jigéen à Ligue des champions Olympique Lyonnais war a finale Ligue des champions d'Europe en titre euh, que d'ailleurs daan Paris Saint-Germain ci demi finale bi internationale française nous benn bi am ci match Olympique Lyonnais kon dina titre dimanche. ci kanamu Allemand yu Wolfsburg ñoom sax dajewoon nañu ñaari équipe yi ci atum 2018 ci final Lyon moo jëloon ndam li Lyon boobule kon ñeenti édition yu weesu yëpp yu Ligue des champions ci jigéen ñi ñoom ñoo ko gagné bi mooy seen juróomeel final bu tegloo euh, ndaxte. kon Olas xanaa dina kontaan jigéen ñam ñi ñu doon final jigéen ñam yi moom ñoo mën Europe loolu moom information problème bi daal mooy euh, góor ñi te xam nga déwén euh, c'est yi ñoom lu ñu joué benn coupe européenne kon Lyon ci saison bi di ñëw.